noonu duñ def rek lu dul euh, tàmbale yéen nag ci euh, samedi bi nga xamante ne àddina bi ñëpp ñuy xaar tous les samedi rawatina nag samedi bi nga xamante ne mooy suñu dernière émission euh, ci seen spécial Rismon miroir Rismonjis ok léegi nag tey duñ def rek lu dul nuyu leen yéen ñu toog di ñu seetaan waaye bala ñuy tàmbali ci yéen dañuy dem nag. Euh, ndax ku ci nekk am nga bunt ku ne am nga yoon ku ne gannaaw yàlla ak yonentu beeg say ñaaru waajur am nga koo yaakaar ñun Serigne Touba la ñuy yaakaar ak kilifa yu baax yi ci réew mi kon dañuy dem nag ziar ñaanal ki nga xam ne mooy sëñ Muntaxa Bachir moom mi nga xam ne moo fi toogal maamam ji Serigne euh, Bamba mu baax mu tedd moom mu Cheikhul Khadim kon Mbakke loo dund doyul sëñ Muntaxa ñi ngi lay ñaanal yéen bi oyof toll ci sa kaw sa màggalu maam bii nga xamante ne euh, dañ ci sa maam da ciy def ak cant gu rëy di ci sant yàlla ak yonent bi ñu dem war faa ñëw nag di ko sant la yàlla yal na la ci yàlla may ndam eh, jaam yi dem ci bisimilahi rahmaani rahim dëpp ci alhamdulilahi rabil alamin nee naa loo dund doyul mbàkke bàllaay sa yéen ñiy seetaan ku ne amin yàlla nga gudd fan di ko ñaanal kilifa diine yi ci Sénégal yëpp bàyyiwuñ kilifa aada yéen ñëpp ñu ngi leen di ñaanal wér eh, ngeen dund ba doyal ndax bu ngeen dundee réew mi gën a neex ndax ñaan gi yéen a ko yor ñu koy sàkku ci yéen waaye dañ leen koy ñaanal saa su nekk ñi nekk ci ay tolof tolof yaa xam kaso la yaa xam wopp la yaa xam banque la yaa xam koo joteel lu mënti di doon rek tolof tolof tolof tolof la ñu ngi leen di ñaan suñu borom gaaw fomp ko teggil leen ko ci barki cheikhul xadim mi ñu gëm yaakaar ko ay ca di nuyu nag ñi nga xam ne ñi ngi ci seen biir euh, kër yi ah, di ñu seetaan rawatina ñi nekk ci facebook live bi nekk ci instagram live bi ah, di ñu xool maa aussi sa la àndal tey dana gën a nice mën daal maa bëgg naa xam diine nga ci diine ji nga ne wala ci lan nga ne yow moo temps yi te woon ñaareel wala du yow maawo moom la a takk suuf la takk a takkul musul takk vie ju tee ngaa waat lu leer yaa ne maawo musul takk maawo am nga ñaareel waaw wala déet <laughs> lii dama koy lijjanti su ma paree damay woo léegi soxna si laay woo ne ko ndax maaw dafa takk wala takkul ay ca kon duñ def rek lu dul àndandoog Vieux Diouf la ñu àndal mi ngi ca kaw moom mooy réaliser émission bi euh, Abdoulaye la ñu àndal ci côté son bi euh, di ngeen am son bu neex tey waaye bu leen fàtte ni am nañ ay invité invité yi nga xamante ne macha allah ay invité de marque la euh, xale yi nga xam ne dañu am nday am baay waaye nag am ñu leen bëgg ci réew mi ndax lan seeni valeur waaye seeni qualité ndax du gone quantité kon bu leen fàtte tey émission bi tardé na ñi ngi leen koy jéggalu waaye dana alaadaw daw mi bu leen fàtte ne Mansour décor la àndal nag moom moo defar plateau bi ba mu yànji merci beaucoup Adja Ombaliko ci tunique bu am classe bile waaye kenn du borom institut beauté saa yu ma jàppee ba fët ma gën a nice kon kooku nag euh, institut Amel yaa la ñu koy wax ah borom Amel kontaan nañ lool euh, musumi euh, tekk perruque bi waaye kenn du mi fomp kanam gi ak marié ya fa nekk jox nañ leen loxo di dem nag ci alsaan mbay bu soxna Baali Muntaxa bi di ko jox koo xamante ne nii moom dafa sori ci ñun muy suñu bàjjen waaye di suñu sëriñ nee naa la kooku nag presque moom mooy borom màggal gi ndax macha allah ay taalibeem ay doomam ay soppeem nee naa la euh, bàyyam ba sëriñ euh, sëriñ soñ bu Mbàkke moom rek a dox ci diggante ak maamam kon soxna Bali ñu ngi lay ziar bu baax di ziar suñu sëriñ bu baax boobu nga xam ne euh, mooy sëriñ Saaliw fii ci suñu kanam muy soxna Assawaalo ñu ngi lay ziar bu baax yaayu Woli Kebe yaayu maam Faatu Kebe Mbàkke loo dund doyul di ko ñaanal nag képp koo xam ne rek suñu sëriñ nga waaye rawatina mbokki taalibe yi ñuy seetaan ayca yuuxul rek sox ah, alsaan alsaan macha allah ñu ngi lay ñaanal rek suñ borom gën a wéral baat bi loo yuuxu doyul alsaan vie yokk ko ba ca kaw. soxna Baale. waaw waaw waaw ñun daal ay murid lanu wut sa baay abu midiyaana xari borom jumaa ji baayam soxna magar gi sëriñ jàppale yaasin bu buguraan de calaw sa yaay ñaari yooni sëriñ bamba sëñ abdu mbàkke borom dër bi ak sëriñ sooyibu soxna baali ku ko am ñàkk doo dara sagu yoonu murit macha allah xam nga man Alsane Mbaye day sama papa ba pare woy suñu sëriñ nee naa nee naa ko euh, suñu bàjjen suñu sëriñ kon boo ma bëggee Alsane mu woy suñu sëriñ suñu bàjjen euh, duma def rek lu dul lu may def rek di ko ci dugal. ay ca duñ def rek lu dul àndandoo ak yéen nag ci téléphone bi 88 628 20 20 waaye 88 628 72 86 ah 88 628 zéro 05. vingt 628 à 65 cinq li des ci suñu xaalis nag man sama plateau li des ci sama xaalis laa bëgg a joxe tey parce que tey nag mooy sama dernière émission pour lan mën a jël pause nag ah defaraat sama yaram toppatoo sama bopp pour préparer li nga xam ne mooy euh, euh, euh, <laughs> vie ah loolu man duma ci wax <laughs> yàlla dogal na ni duma ci wax yow loolu duma ci wax bàyyi ma ma kon ma dem wala ma continuer walla vie man loolu duma ci wax juuf loolu da koy defalee sa ñaari jabar yooyu man yàlla dogal na ni je suis célibataire je suis libre je fais ce que je veux <laughs> ma dem wala mën nga ma may jàmm ma continuer ok kon euh, duñ def lu dul man li ma dese ci sama xaalis ci sama plateau ah, tey dama leen koy jox ah am naa fi ay enveloppe bu vingt cinq mille vingt cinq mille pour yéen ah, am naa fi un million cinq cent comme li ma am barki démb ci matin bi tey am na un million cinq cent tey nag million cinq cent yi dama koy joxe rek ku dugg rek ma jox la ci nga daal di tàqalikook man ñu ñaana ñaanalante ñu leen di fàttali ne leen d'accord feebar bi wàññeeku na jeex na wala jeexul euh, képp koo xamante ne préparé nga bay jël sa oto wala nga war a dugg ci oto yi di dem bu leen fàtte euh, takk seeni masque moo gën a wóor moo gën a dal xel ba pare dina yombal suñu màggal ba pare macha allah dina neexal suñu màggal ndax dem ci jàmm li ñu bëgg ñibbisi ci jàmm ku mel ne Cheikhul Khadim kenn du ko seeti di dem ci fitna du ñibbisi ci fitna amul ñun ñëpp mbégte mi ñu yóbbu te nee naa la mbégte mi booy dem day ànd ak booy dem nga ay ca kon bu leen fàttee euh, masque yi te ngeen yokku euh, euh, cet gi bu ñu yeggee ngeen góor góorgóorlu macha allah ndox maa nga fay bal saabu yomb na lépp yomb na ñu ñu fàttaliku rek yóbbaale suñu li nga xam ne mooy suñu ay suñu ay masque ak suñu ay gel alcoolique yóbbaale ko fa nga xam ne mooy Touba ay ca jox ma ki ci ligne bi allo. allo oui Fatou. noo def ma chérie. yow noo yow noo def yow. man kay maa ngi sama lan jàkkaarloo yore bi bay bëgg dee. yaa ngi bëggee. billaay wallaay li nga saytu li nga agent xamoo ko. waaye yow lii lakk la wala xam. ah lii kay moom geer la comme geer la. lii comme geer. lii comme geer. lii comme geer. comme geer. la wala mariage. ah lii kenn xamul est ce mariage gannaaw kële ba fee nga ngeen nga ni kay. yàlla bu mu nekk dëj mbay. Ah, yàlla tere. yàlla tere ayca foo may woowee ma teral la gaaw. géej gi néew laa lay woowee géej gi néew région Kaolack. yaa ngi gën gi néew noo tudd. yaa ngi Khady Diop depuis gën gi néew. jeex na waxul waaw nañ ko may ci enveloppe bi may naa la benn vingt cinq mille na keneen dugg ayca vie bu fekkee euh, Eva mën nga ma ko jëlal euh, teral naa ko jox naa ko enveloppe bu juróomi junni. Euh, ay kooku damay ñëw léegi waxal ko yu baax barki Serigne Saliou mosuma gis xale bu man ba pare xam nga man ay temps ndeysaan nit ñi dañu lay fan mais yow dangay am koo fan loolu day am ci woykat am ci théâtre kat am ci ñun ñuy présenté am ci ñëpp bëgg nit munut ñàkk mais man ki may waaj a souhaité heure ménage Serigne Saliou rek laa bëgg barke xaadimul xadim dama ko bëgg ba teyuma ko li ma beseel naan yow sama rakk nga dama laa bëgg ci sama xol mais man moo ko dogal xaw ma gis nga takkam gi dama koy ñaanal yàlla na nekk lu gën ci moom ci barke Cheikhul Khadim Mbacke sëyam bi yàlla na nekk benn sëy moo tax looy xaar rek bu jotee yomb est-ce que nga loo profitoo ba jëli ko te jotut mën na laa indil ay ay ngaañ moo tax dañ koy ñaanal moom ak euh, sëriñ xaas suñ borom bàyyi leen ñu sëy ay ati ati at ah na yéex kuy kii ba ba dee ñëw daal yàlla nañ dund ay junni at nga xam ne dee moo leen di tàqale ah euh, Sumbulu euh, ma sœur adorée ñu ngi lay wax heureux ménage xale bu adorable la hmm? man miinuma ko mais dama ko bëgg man yàlla def loolu dama bëgg ni ma bëggee Saneex noonu laa bëggee Sumbulu dama ko bëgg moo tax dama lay ñaanal Sumbulu te Sumbulu ku ko bëgg defe naa di nga xam looy expliquer parce que Buri jabaru Balla Gaye elle est adorable Buri amul noonu te ku buru bëgg Buri il faut que nga bëgg Sumbulu parce que ñoom macha allah xam nga des fois yaay day jur doom doom yi réeroo mais man dama bëgg famille bu jàppante te ñoom macha allah dañu jàppante. ah ba pare ku xool ni seen yaay di waxee nga xam ni lum jur day yàgg rek mais mën nañoo tekki ndax mère bu set la meeru làkkat yi amuñu caaxaan moo tax euh, sumbulu dañuy gàttal wax ji rek ndax cat baaxul yàlla na la yàlla booleeg suñu sëriñ boobu euh, euh, sëriñ xaas ah di ñaanal suñ borom sëy bi yàlla na nekk benn sëy ngeen sokkorloo ni asamaan ak suuf yàlla nag bàyyi leen ak seen yaay ju baax joojule ba ngeen koy yóbbu ay màkk yu baree baree baree bari ci barki Serigne Touba sëy nag neexul courage waaye gis naa ni macha allah xaas moom ku ko xool xam ni nit ku baax la ku am yéene ci jigéen la te booy takk euh, booy am jëkkër sëy ak ki la yërëm dafa am solo. te sumbulu ko xool ni ko jëkkëram takke nga xam ne yërmande rek la ko takke yàlla na yàlla bañ a tas yaakaar yal na yàlla boole leen moom it xaas suñ boroom yokk wërsëg bi ci ñëwu sumbulu bi ba mu xam ne jabaram ji macha allah jig na ko te am na yéene sëyal ko xaas nag yaay suñu sëriñ waaye na nga moytu takk nga suñu nawle boo moytuwut nag lu ko métti danañ la attaqué en direct xaas <laughs> envier <laughs> ay kon sumulu heure ménage dundal ba doyal loo dund doyul ñu dem jëlaat ci téléphone bi euh, vie xanaa yow da am lu la met ci sëyu sumbulu gi xam ay temps ñu takk nit nit mer <laughs> te fii yàlla dogal na am nga ñaari jabar ay ca ñu ciy nuyuwaale tamit euh, Mawo Cissé moom euh, sumbulu jigéenam la hmm, sumbulu nag dafa baax réew mi xam naa xamuñu bu baax baax baax mais xam nañ ni dafa baax ay jox ñu ko ci ligne bi man man ah? kan la kan mooy xaritam waa sëriñ xaas yow maawo sa xarit la ndax yow macha allah yow xale bu set loxo nga mën ngaa bokk kilifa diine yëpp ba pare maawo dañ lay ñaanal gudd fan ndax yow kilifa nga ci réew mi ndax kilifa yëpp la bëgg te kuy ànd ak kilifa kilifa nga waaye nag waa d'accord comme man xale bu baax laa d'accord mais ma jël ki ci liñ waaye xaas lu nekk suñ sëriñ nekk suñ sëriñ takk na suñ nawle waa xaas en cas de jékki-jékki ma jàppale rek dinaa la boole <laughs> waaw te xaas nga def ci ndànk ndax gato bu neexee tam boo koy lekk yàq waaw yow sëñ xaas ñu ngi lay nuyu di la ziar waaw mais xam nga ñun sëñ xaas suñ sëriñ la waaye léegi suñu borom kër la ndax suñu nawle la jël comme soxna moo tax sëñ xaas man sax xam naa dinaa la seet si incha allah avant may dem Touba xale yi gis nañ la gisaguma la il faut ma seet si la ayca di leen ñaanal jàmm fa ñu nekk ayca jox ma ki ci ligne bi allo. alo oui ma chérie. ah Amina Poté. tubaab bi fii la dëkk. allo. nekk tubaab mel ne fii la dëkk. allo xoolal yooyu tànk yooyu long-long. cim allo. oui ma chérie. ami Amina Poté. déggal ni mu ko neexalee ami noo def. maa ngi nii ça ci jàmm Baye noo def maa woo Amina. maa ngi nii rek di sant suñu borom. foo may woowee nii. ah. foo may woowee. maa ngi lay woowee Ziguinchor. yaa ngi may woowee Ziguinchor. waaw. waaw da daanu nag fii dañ fiy bañ waaw wala ba may la dernière chance. ah dafa dem ay ca waaw lañu fiy de bañ euh, gis nga àddina waaw. lan yi. da ngay régler rek ubbi ma man ubbi ma noonu waa léegi may ma ma jël ko ci ligne bi après nga mayaat ma alsan mbay bi tey alsan mbay laa fas yéenee laa fas yéenee teg ba émission bi di jeex ndax dafa woy suñu euh, soxna Bali moom macha allah kenn bëggu ko ndax kenn xam nga kon moo tax ñu bëgg ko bu baayam bu baax ba rombeek maamam bu sell bi ak suñu xalif général bile jikkoom moo tax ñu bëgg ko ndax nit di nga am juddu te doo am valeur moom macha allah dafa am juddu ba noppi am valeur. kon Mbacke Balla loo dund doyul Alsaan Mbay bi nag bu buusee foofu yow a tout moment mën naa laa teg ci yoon vie Alsaan Mbay bi rek laa soxla jox ma taxawal jox ma ki ci ligne bi ba pare allo. noo def mon frère. maa ngi sant yàlla daa mel ne pare nga pour dem de Touba. waaw waaw ay ca moo tax nga daanu waaw waaw arrièreal ñu dugal keneen gaaw fii tey amul négocier sóor leen ko non garaawul grand parce que li fi nekk 1 million 500 yi bariwul te ligne bi bari nay nit ay ca jox ñu keneen euh, ñu dem ku dugg ñu jox la sa enveloppe bu Touba mais ngeen mooy too wax rek waaw ba yegg ci waaw waaw alu keneen vie dama war a changer nii sama mbubb mi dama war a changer nii sama yére bi léegi Adja ombalikoo nag bu leen fàtte ni moo ma sololoon lu rafet lile ah euh, numéro 77 la tunique bi am na classe numéro bi 77 la. 519 18 04 pour ngeen am sañse bu yanj bi le ajaa ombalikoo moo ko am allo keneen. allo. allo ma chérie yaa duggaat. asalaamaaleykum maa duggaat. noo tudd. Binta laa tudd. ah Binta yaa daan woon sànq. gis nga loolu. sànq danga pertoon lan nga waxoon ba perte. moom lañ fay tere. <laughs> ca jox naa la enveloppe bu vingt cinq mille euh, bala nga pertaat comme dem nga ñëwaat il faut que ñu teral la am nga fi enveloppe bu juróomi junni dégg nga. ay waay jaajëf. ayca ba pare nag Amina. waaw kontaan ci yow. ndeysaan. waaw bëgg la lool sama cheikh yi bëgg la lool. ndeysaan billaahi euh, xam nga nit dina bëgg wax lu baax xol ba fees. est-ce que nga ba wax ji du xam sax nan la koy waxee ah looloo ma dal sànq ci sumbulu ndax cofeel gu ma am ci moom non seulement dama am ci moom cofeel mais dama am ci moom ñeewant ci comprendre waaye dama koy ñaanal rek bàyyi naa kook Serigne Saliou ak sëriñ Xaas mii nga xam ne macha allah moom mooy borom xaas te du ngaañ ay ci jox ma keneen ki ci ligne bi nga may ma kili bu euh, Alassane bi allo. allo Amina. allo ma chérie. oui Amina ça va. ça bien yow nag ça va. ça va Dalifort. yaa yaa ngi Dalifort dafa mel ne temps yee duggoon nga. non du man de. ah du yow ay ci jox ma sa tur. Oulimata. Oulimata. Oulimata. Oulimata te du Dalifort moo nekk ci côté boo nekkee ci wetu autoroute bi Oulimata. ay Aïcha Oulimata dafa bëggul wax waaw moo tax muy hésité li mu war a wax Aïcha jox ñu ki ci topp Vieux Diouf ñu euh, gaaw joxe suñuy enveloppe doog a ñëw ci leneen ndax tey damaa bëgg jeexalee téléphone nga xam ne bu sama ndaanaan bi toogee fii kenn du ko dagg waa xam naa ne bu toogee sax appel yi day yokk waaye euh, mooy loolu alo allo waaw. xale yi dañoo mën a woyta te duñ ànd ak ay instrument temps yi loolu rek laa leen bëgg a jàngal allo. waaw. allo waaw nga daan moo tax ma kon ne nii allo waaw. Ah, dangaa daanu noonu jox ñu sa tour ci ay ci jox ñu keneen Vieux Diouf euh, nga may ma Alsane Mbaye bi buñ toppee téléphone bi ah, duñ fi jóge tey di nuyu sama rakk ja xaali Diop euh, Diop ju o naag Roqaya Ndiaye nee naa ko yow mataaray sa baay waaye Seli Meng mu baax maay euh, sa yaay beskaay mooy sa maam kon yow mënoo ñaaw waaye kenn du sama yaay jooju nga xam ne bu màggalee rek mu neex kooku nag moom rek moom mooy màggal muy séeréloo waaye nag magam ja nga xamante ne du magam séexam la soxna faatu sàmb ajaratu Fatou Samb Cissé moom lañ dénk Cheikh Imam Assane Cheikh Cheikh euh, Cheikh Cissé hmm, imam Cheikh Cissé moom lañ ko dénk doomu ndeyu imam Assane Cissé mu ñuy jooytee noppeeguñu Cissé Mali Fanta Ndiaye yéen lu ngeen woote nit ñi dinañ ñëw ndax macha allah dana sell dana neex te yàlla ak yonent ak Serigne képp ngeen di dund kon seere ñi ngi lay nuyu yow it di la jaajëfal di kontaan ci invitation bi di la wax ne la ñu nit ñi ngi waaj xam naa ne sax noppi nga waaye ñu nit ñi ngi waaj ci kàttanu Serigne Touba allo keneen allo. allo. Amina. ça va. bien. yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm bu baax. foo ñuy woowee. Grand Yoff. yaa ngi Grand Yoff. Grand Yoff laa nekk kañ. ok sa tur naka la. Khady Diop. o oh, Ndeye Khady Diop. Ndeye Khady Diop wala Khady Diop. Ndeye Khady Diop ah, daanu nga waaw ay ca vie comme daanu na may ñu alsaan mbay bi la euh, euh, euh, temps que may jëlaat beneen beneen may ñu alsaan mbay bi la temps may jëlaat beneen téléphone. ay ca soppe soxna Bali yéen ñëpp ziar nañ leen nuyu nañ leen. soxna Bali Serigne Soyiboo Serigne Soyiboo Serigne Bamba ñun daal ay murid lanu Serigne Soyiboo sa baay Abo Média yaasin bu bugg rek deg sa yaay ñaari yooni Sëriñ Bamba sëñ Abdou Mbàkke borom dër bi ak Sëriñ Sooyibu soxna Baali ku ko am ñàkk doo dara sagu yoonu murit mbay dañ koy ñaanal rek jàmm nee naa la nit ku baax ci réew mi rek dañ la war a ñaanal euh, jàmm ci kattanu Serigne Touba ah nee naa la nag euh, Modou Gueye héritage moo ma defal nii euh, moom itamit nee na campagne yu màggal solidarité màggal ba tax na képp koo xamante ne taalibe nga rek war a dem Touba mën ngaa dem nag ci Modou Gueye héritage mu defal la yu baax yi dam yee la tudd lii ñaari mbubu la kay mi ngi nii mu ngi ngi nii yooyu daal la ma defal yii waaw ay ca bu leen fàtte yéen a ngi ci euh, euh, téléphone bi 88 628 ma jël euh, benn nit rek dem toog sama place mën a dalal nag ki nga xam ni nee naa leen man bugguma invité artiste parce que ndaanaan boo ko booleeg bool bongo sabar instrument yi bu baree doo xam koo koy kan mais pour ngeen ràññee réew mi ñi mën ak ñi mënul il faut que ngeen leen di woyloo ak seen baat képp ak micro loolu dina tax ngeen ràññee seen i ndaanaan mais bala ñoo ñëw ci loolu ma jël benn téléphone doog a avancé allo ki ci ligne bi. ay ca vie coupé ko comme wàññiwul teleem nga jox ma ku wàññi teleem parce que mënul ànd ay ca coupé ko jox ma ki ci topp allo maa ngi ànd ak seen xarit bii nga xamante ne tey da cee ñëw di jàpp de maawo nag yow xanaa gëj ngaa téye caméra nag maawo cartable kolu sëriñ <laughs> Eh, man ne ki waroon ki ki waroon eh, ki waroon filmer tey Amina Poté tey moom xam naa ne am nga ñaan maa aussi si teel la caméra bii. allo Amina. waa ma chérie. ci loo nekk. sant sëriñ saaliw yaa ngi ci jàmm. maa sant yàlla yow nag yaa ngi ci jàmm. maa la bëgg sama xol. barki Serigne Saliou maa la xaw ci sama xol. yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yow it yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm. foo ñuy woowee. ñoom la woowee Kaolack. yaa ngi wootee Kaolack Kasnack Ndorong euh, Boustane Sara yaa ngi Kasnack allo. foofu laay wootee kay. foofu ngay wootee day bañ a wax waaw ay ca fàttali ma sa tur gaaw ma teral la. Ndeye Sall. mais Ndeye Sall depuis Kaolack ah. Ndeye Sall Kaolack. daw na waaw bi lay bañ a wax ba tiit ba dem ay ca dernière personne euh, ci kanam dinaa ñëwaat ci téléphone bi mais jox ma benn nit rek euh, parce que bu ñu toppee téléphone bi da ngay maar ay ca allo. bàyyi ko mu ñëw allo. Amina. waa ça va noo def. maa dugg léegi. yaa dugg sànq wax waaw waaw. lu ma ci am émission bi damaa raw. xanaa bi doo daanu nag. mukk ci àdduna. pare nga kon. pare gu de xanaa yow la ñuy xaar. man ngay xaar kon ma départ. départal. ay ca mbaa doo juumaat. ah yaakaaruma ko de. ay ca joxaat ma sa tur. Ahmed Fall la Thiès. Euh, yow yaa woote woon sànq ne yow la Ahmed Fall depuis Thiès ah? maa woote woon dëkk Thiès Ahmed Fall. ay ca Ahmed Serigne jeex na kon dafa mel ne Ahmed fi mu ne yaa ngi waaj màggal gi. ah bu fekkee def nga différence dañu ngi waaj. ah man kay damay def différence léegi Ahmed. kon defal différence yu xool. ay ca te du Ahmed Fall la. Ahmed Fall Thiès. ah Ahmed ñaata weer a ngi nii dugg si woo Dakar mat na weer. ah yaakaar naa ko de ëpp na ko de. ëpp na weer ah. ëpp na weer kay. maanaam à peu ay deux mois trois yooyu. wala deux ans. ay deux ans ah kon gëj nga Dakar Ahmed deux ans nga wax. yaakaar naa ko gëj naa nga fi deux ans presque deux ans ferme. wala mu ëpp ko kay. wala mu ëpp ko. wala mu ko kay. ah daanu na wala mu ëpp ko waaw. daanu ma daanu xaaj mu bay daanu. léegi nag bal ma mayaat la chance mais daanu nga. ah eh non jotuma wax eh, eh, mais wax nga commencé nga wax waaw bal ma may la chance rek d'accordal ma may la beneen chance. indi indi indil ma xool. dégg nga nee na waaw indil ma xool. ay <laughs> baal ma may la juróomi junni parce que bu ma la toppee rek dinaa jeexal sa crédit baal ma may la juróomi junni am met ay jël leen ko jox ko vingt cinq mille francs euh, nee naa la euh, waaw bi yombul mu ñaa maawa yow xam naa boo doon joué di nga gaaw a daanu yow da nga bëgg ay waaw waaw yow lu ñu nga ne waaw waaw <laughs> yow yaay maawa borom waaw waaw ah, doomu ndeyu Serigne euh, Serigne kii Serigne Diop xaas ah mais kañ nga ñu yóbbu nag ci suñu suñu suñu suñu Serigne suñu amoore ah Diop xaas nag am na problème moo dugg ci ñun dinañ ko sëyal sëyal sëyal ba mu xam ne ay sëykat lan ay ca jox ma keneen ki ci ligne bi euh, ma bàyyi nag sama euh, euh, yaay Fall bile mu dugg nag nuyu leen allo allo waaw. noo def. yàgg naa ci serveur ah, nga ay ñaata minutes jël na une def nga fi dix minutes. barke Serigne Saliou. ah bon. importé li nga sañ li ma sañ sa de moom mooy moom la réew mi coow li ma sañ seeti sax man xanaa li ma sañ seeti sax laay wax catama jéppi dootuma dugg fenn daf maa sip cat cat moo ma sip <laughs> yow cat da lay romb di la daw waa ko <laughs> allo yaa ngi ci ligne bi Poté nag paas Touba rek laa bëgg nag dem màggali ah pare nga kañ ngay dem léegi rek semaine bi rek yow laay xaar différence. kon bu ma la defalee différence di nga dem. bil bés Serigne Saliou. ah pare nga pour dem. pare naa. ah bu ma la mayee di nga ko bokk ak sa yaay. moom laa koy bokkoon moom laa koy séddool mooy sama gen wàll. ah tey bu ma la mayoon tey fukki junni di nga ko jox juróom jël juróom. bu soobee yàlla. bu ma la invité Dakar it di ma seet bu ma allo dafa dem. ay ca euh, boobu ba tey nag wuñ kenn ci ligne bi ñu ngi jël suñu enveloppe di ko maye nu mu leen neexee xam naa moom itamit réseau bee ko jàpp jox ma keneen rek vite fait ñu ngi may wax ne téléphone baa ngay toj ci biir du am dara fii rek lañuy ñuy def ay kii dam yee allo ma chérie yi ah wàññi sa télé amoore allo Amina waaw wàññi tele bi wàññi naa ko ay ca wàññi nga ko foo may woowee yaa ngi may woowee Kaolack HLM uh, Ngaan Këwoon Saam fan nga may woowee. a ah, Batuwaar. yaa ngi wootee Batuwaar. ok. yow fan ngay wootee Betuwaar. oui Betuwaar Njëlafeen. waaw Betuwaar kon yow xam nga ma ndax man Betuwaar laa doon sëy. xam naa la bu baax kay moom. xam nga sama goro bi Alaaji Seydou Mbaye. te mu gaañu te mu gaañu woon fan yee. Alaaji Seydou Mbaye waaw xam naa ko bu baax. xam nga ko bu baax. xam naa ko bu baax kay. ah yow noo tudd. Yacine Ndiaye. Yacine xana xanaa yow doo jolof jolof. jolof jolof pur. Ah, jolof jolof nga. jolof jolof piir et dur. waaye mel ne jolof jolof tuuti nga waaye yow jolof jolof ak tuuti. Saalum Amina yàgg yàgg naa barki dem su jodi ba tey maa ngi commencé di la woo. rek. moo tax ma jël la nii ñuy waxtaan te dama koy baral ndax yow sama mbokk Saalum Saalum nga te du yow xaaf jolof jolof xaaf Saalum Saalum mu gaaw ma jox la nga dem. xam naa loolu kay mais bàyyi ma dem dem ma. bàyyi ma dem kon dema loo bëgg enveloppe. nuñ ci dara mbir mi xanaa du noonu nag lan koy joxee nag. ay ca téyel ma téléphone bi euh, Vieux Diouf mayeegum naa euh, cinq enveloppe ma ñëw nag joxe yi ci des mais bala maa joxe yi ci des nag dañuy dalal suñ gan gi nga xam ne nee naa ko moom juddoom moo ko tooñ nee naa ko judduwul rek woy waaye deret day woyloo nit ay ca faatu ndigal ngeen di am foofu déglu leen baat bi ay waay yonen kabrayna bismillah la Muhammad Seydi la weli na kabray na ya nak in ma taala la sa micro maray na yonti Yàlla Muhammad waramay ni كبراينا ما راينا سيدنا محمد ورمايني أبدا سريت بانينا بلا يالا ما يبات بنيخ دمنا واي توايو رسول الله كو منا واي نيلا باي سري ساليو نينا Serigne Saliou nee na la waaw la nay la fadulin musri dalawo wal fatuy da rasulillahi xaraaru amina neel nii nu màggal yonti yàlla muhammad wa kullu nabin jaa يبشر خمو بأنك تأتي خاتما بنبوتي أمينة كنا يا كرنينا شيخ الخديم باي سري سالم سما يا كار بالله والله شيخ الخديم باي سري سالم وين يسر رسول الله لخاتبي بمولدي يدوم لنا بشرا يفي خير مولدي وقال إلهي كل دور بجاي موس نواين يا مسدي نوالين يا مسدي ومدن المختار لولان ياتي مثله mislu yunix masaydi amina sunu yaakaar sëriñ saaliw billaay wallaay waxab li yal xil masail wa walab mal asaali xëllësi yukamil rab mal lin xaada Amina sëriñ Saalihu mi may way biñ ma teree sondel moo ma jox courant ma niit biñ ma teree matt mi moo ma jox gaz bi ni ma taalal ay waay bu eey borom jurul Amina Saalihu bu ma feebaree mu faj ma su ma ñàkkee mu may ma bu nit lëndëmee ñëw ci man mu nital ma jikkoom ñaalo gay naa ko yaa ko yeyoo bàyyi mu saa saaliw bàyyi soxna waala mbàkke bàyyi soxna waala mbàkke maami wali Québec soxna mam faate sëriñ Saliw laa la nuyoo borom njurul ca nii rek la ñuy àndoo ànd ak ndax nee naa la euh, boo demee ba génn télé rawandita léegi nga xam ne ni ko xale yi di waxee télé ci poche dafa am ah, naam di nga prouver sax waaye chaque jour li la war mooy ngay bégal ñi lay xaar te gëm naa ni yéen ñi toog bég ngeen parce que euh, ndaanaan aajowul ci lam bu diis ndaanaan aajowul ci yére bu euh, riche waaye naan ci jëmm la waaye ci deret lay dox kii ba mu nee der xam ngeen ne réew mi bu fekkee ne am na ku ko mën it génnagul ci télé yi moo tax tey ma tegal leen ko fii wax ji nag du dem sax ci téléphone bi dama koy bàyyi mu mbokki Baye Fall mi ndax ñoom ñoom yaay Fall yi ñu ngi toog ay canel der ah, Amina dig ma yëngal daal. ndeysaan. Cheikh Ibrahima Fall jaraw lakk. kii mën a way. yomal xiyaam guñ fa lakk. ay waay. <laughs> dalaa ba faal ci xarnu bee woo oh, dala bañoon faal ci xarnu bee gayam ko naan dëpp rëy la ndeke mooy waaja xal yoon wi maami borom ndigal faal sama wasiila Ibrahima Faal innakal kamal ndeysaan maami borom ndigal faw xarijalullah wallaay wallaay dem mil de jëfuñoo du jalaw wi demee lay da samba yaaya faale faraxati ca njar ndeem eey Cheikh Ibra maam sey jaay waaw waaw sama wasila baay sama wasila baay ma nga tuubaay Mouhamadou Moussa Ndiaye sama baay Baay Fall dëggi dëggi Baay Fall Lamina ki may bëgg a Baay Faatu ndigal ndaa naan li Baay way da jaay aji jaat pedere ña ngi yaayam mama yasin demba daam mi ci Konaakiri yàlla penda balla beey ma xumba saa njéemé diggéen mi ci waalo yell meer baa nga Tuuba amina bu ma jooyee dama gisul ka ma miin ki ma daan jox te duma ko laaja nga tuubaay nelaw alaaji mbaala la nuy wooyee baayam may mbokku géwél yépp billaay ndeysaan njaayay baayam ma dun balaak may sa bala kodd bala kodd maa ne mbaay njaay Fall dem na ma dun yoro faali alkare ba ndar jaay ma dun balaak mooy sabal kuddu burum ndigal Fall sama wasiilay ku légal ni dëggi baay Fall laa ndigal ay ca gis ngeen euh, man lu tooyal sama xol yombul ah, parce que dëgg rek lay dund man man du ma jaaxle ba woo kenn ne la kaay damaa jaaxle ñëwal may ma moo tax lu may dund ci sama xol bi dëgg lay doon te lii dafa génn ci xol moo tax nee na pare ci seen biir xol di ko ñaanal yàlla na ko yàlla sàmm moom ak rakkam ji nga xamante ne bëggul lu dul ko neex fu magam ji ne bu reeyee ñoom ñaan ñu ànd ree waaye bu joowee ñoom ñaar ñu ànd jooy loolu nag li ma waxal léegi sumbuloo ay mbokkam moo leen dal ñoom dama bëgg nit ku jàpp mbokkam Euh, bul ànd ak bañ ànd ak jàmbur nag parce que looy def bu ca jàmbur bokkul mën ngaa jaaxle waaye teel say mbokk nuppi parce que ànd ak say mbokk boo amee tàqalikook ñoom boo amee neex na lool waaye am na foo xam ne boo fa yeggee say mbokk rek la mën a tiim te àddina léegi lu ne day dabe ci ay wopp mm-hmm. xam nga ku la tiim di sa mbokk doo am xel ñaar ndax du toog fenn ba weer la ndax bu weeree bu la weeree weer boppam waaye jàmburu léegi luñ la xamal ci yërmande waxtaan dana ñëw ñu génneel la ko mi ngi noonu kon euh, euh, nit ku baax warul wax ak ñëpp waaye nit ku baax warul ànd ak ñëpp euh, ñuy ñaan nag ñi nga xam ne ñoo fi nekkal artistes yi le ñu jàppale leen ndax nee naa la artistes yaa ngi feebar ndax lan am seeni talent denc ko talent nag dafa mel ne valise 23 kilos nga bëgg koo téye ci sa loxo ngàbb ko di dox Dakar ba Kaolack talent ci biir dafa diis talent ci jëmm di dox ci biir deret artistes yi na ñu jug gaaw jàppale leen ndax métier la hmm? art métier la ah, a pas de sous métier la tubaab wax moo tax artistes yi mën dëggantaan ñi ngi fi il faut que ñu gëstu leen ñoom itamit ñu jug seeti ña leen war a jàppale euh, ñu jàppale leen ay ca jox ma ki ci ligne bi ñu ñëwaat léegi ci faatu Ndigal parce que nag fi mu ne day mbeeraay tey nee na ma sans dara ah ngeen xam ne kon euh, kii ndaanaan la ay ca allo waaw allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam mbaa yaa ngi bëggee. maa ngi bëggee bu yaa ngi kontaan. maa ngi kontaan bu baax. maa ngi leen di wooyee Parcelles yaa ngi wootee parcelle unité. yaa ngi 21. waaw waaw da daanu dañ la bëggoon. may ci enveloppe bi mais mbir mi waaw lay bañ nga baal ñu rek suñu yaay ji ñu ngi kontaan lool ci yow ah ay ca jox ñu keneen vie Diouf ñu dem euh, parce que enveloppe yi ci des euh, mën nañ ko maye mais waaw lay bañ alo allo Amina. noo def ma chérie. kontaan ci yow. may maa gën a bëgg. li ah, yaa ngi bëggee. alhamdulilah. Ah, foo ñuy woowee. Fatou Seck Kaolack. Euh, Fatou Seck depuis Kaolack. waa Kaolack. Ah, waaw Kaolack Fatou. Fatou xanaa kay dañ lay bàyyi rek nga jaar ci porte kii bi jaune rouge. waaw Kaolack ay jox ma keneen faatu Seck ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Kaolack yëpp xam naa mbokk Bakane sekk la di nuyu nag ki nga xam ne mooy Fatou euh, Kama ah, kooku mooy yaayu kii euh, kooku mooy yaayu Ndey Njaay suñu GP bu mag boobule ah, doomu ndeyu xaali Diop maman Fatou Kama ngi lay nuyu euh, Nene Gueye ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu nag ay Aïda Doucouré yaayu Chaay maamu Kumba Diop di nuyu ki nga xam ne mooy hmm. allo allo oui allo Poté. kookan la. madame Diouf Mariama ja madame juuf yaa ngi kontaan. bu baax a baax a baax. sa xol a ngi neex bu baax. torop torop waajal de dama lay bett léegi ndax ndaanaan boo ko bettee ci ngay xam ki mu doon waajal de léegi ma ñëw ci yow. ay ca madame jëkk na madame Diouf merci beaucoup gis nga moo Gueye héritage la bëgg gunge leen rek ci màggal gi. yàlla ñu yàlla yóbbu ci màggal gi jàmm ak salaam. amiin ci barke Sëriñ Tuubaa. amiin ci fan nga ñuy woowee mama funjuñ waaw ah, yaa ngi ba funjuñ ci jën yu neex ya yaa ko wax fi jën yeeg si pax yi nekk yaa ko wax loolu fii permis fii euh, air pur bi nekk torop macha allah ayca naka nga wax madame Diouf madame Diouf bu baax sax madame Diouf naka monsieur Diouf mi ngi ci jàmm jàmm ji yaatu ayca madame Diouf xam naa ba ma la joxee ci enveloppe bi da ngay waajal Touba rek Touba rek ci kanam ca kaw ca ci lu baax yaa ngi ci yoon bi kon pare nga pare naa yàgg na ku la jox enveloppe nga départ allo ayca madame Diouf dem na ayca der ñu xool ñëpp a ngi lay seetaan fi mu xool yëpp fees nañ nara naa sa doom jaa ndeysaan potet bu xiin wa ñu leen maa nga jawaañ waa jawaañ waa ma tax jooy maa ko xam ndeysaan waaw sama na ma li ma tax a jooy maa ko sama baay ba woon ma faatu kaa waxtaan gis nga bi ma nekkee xaleel bi may ñàkk baay ah, booba xaleel bu ndaw la may laata xàmmi ko way oto bu jur yooy boo amina xalaas àdduna day wóore mu ne jarta ñaaw day naxe li ma tax a jooy maa ko xam dafa mbaala guddee eey amina déglul ba way bur yaa ngi naan baadool yaa ngi naan dërëm dërëm ba tax ñu fàtte yàlla mi borom jaam ñi kullu nafsin zaayi xatal mawti kullu man alayha faani ey amina way wi may way ku ñàkk sa yaay ku ñàkk sa baay jirim loo di jooyee xanaa baay eey baay booy jur nga ma fi ma war a jure jox nga ma yaay ju faatu jeeg saala way te baay jàngal nga ma alxuraan xasida yaa ngi may nit oo oh, baay oo oh, baay oo oh, baay yaa tax ma gëm sara faal baay amina ndaa naan yang ko naan tafa maalo njaay ñing ko naan maada bay fali naan ko Cheikh Moussa wa jay gewal wowowowoy jalewa ngi riiro ee eh, ajab naa ngi riir bay faal yaa fay lëb mee sama baay booy mbaa xam nga ne fi ma teg baay dama koy jàpp baay aar bi yàkkam juuma ci dara amin sama baay ñaan sama yaay ñaan ee eh, eh, kul mën a leya nan ko suuraale amina xëbal jàmbaar dina bub ragal faj ku repp xañ ki nara am nan ko suuraale ta xam ni yàllaay dogal man de sama baay merub ma baay jooyatu ma baay ee bàyyi nga maag jàmbaar yaayu ay da ndigal mi toog dafa mbaaloo meru ma xiifu ma yàkkamtiwu ma baay lu ma bëgg ko bu yónni taxawee ma dem ñëwaat bay jox na ma xam-xam ku ma xam ni ndaat naan laa konte lu may tiit amina lu may ragal amina amina ay da ndigal bul jooy xol xasan na tawoke su baram jotu kan ngeen doon xaar ndigal la kan moo leen neex ndigal la bay faal lu muy jëfe ndigal la murid yi lu leen neex ndigal faal ba muy sa tuur faal rek lu àndandoog yéen ci téléphone bi 88 628 22 22 88 628 05 04 05 ñu jël ki ci ligne bi allo allo. allo. waaw noo def ma euh, mon frère. ñëwati naa man la maa ñëwaat. dafa daggoon. da xam nga a da ngaa da ngaa daan woon mais baal ma teral la bala ngaa daan waat may naa la juróomi junni dégg nga. ayca waaw. ayca arrièreal keneen dugg sinon rek dana waxaat waaw allo alo vie bàyyi ko mu dugg allo ki ci ligne bi allo. Euh, ay ci dañu def rek lu dul euh, dem nag ci publicité yi vite fait euh, nee naa la am na setol mooy gamme bu nga xamante ne am na gel antiseptique am na luy fomp bois am na gel buy raxas kër macha allah di gamme boo xam ne jeeg bu ko ci jël pour sa bopp macha allah waxuma la kër gu xeeñ neex mais yow sax neex ngay xeeñ kon dañuy njëkkee ci moom Vieux Diouf ñu seetaan ko ñëwaat doog a ñëw ci ki nga xam ne nag moom mooy ànd ak jeeg ji ci màggal gi ren

Amina tey nag dañu sol suñu dàll seet si ki nga xam ne moom moo di Ndeye Birame Thiam ñu gën koo xam ci madame Guèye nekk fii ci si cité Batrin moom nag mu indil ñu benn gaamu setool bu neex boo xam ne rek euh, day ñuy dindil euh, suñu ay tilim tilim ci suñu biir kër waaye tamit di ñu jàppale ci microbe yi waaye tamit di ñu dimbale si weñ yu bëri ak yooyu nga xam ne rek sonal nañu waxtu bi euh, kon nag ma leen di wax nag gaamu setol la leen indil am na savon liquide setal am na gel hydroalcoolique am li nga xam ne moo di eau de javel am na li nga xam ne moom moo di liquide désinfectant am na tamit lave vitre waaye tamit am na détergent bleu ak classique tànn sa bu la neex la maanaam yëpp efficace kon nag ñuy fàttali ne euh, képp koo xam ne rek bëgg nga fobeere ndax man xam naa ci dara ndax nag laal naa ko bi may fobeere samay karo dafa set wecci lave vitre bi ma fomp ci sama verre mu set wecci waaye tamit détergent bi ma raxas ci samay kaas mu set wecci yaakaar naa weddi gis bokku ci gaaw naa xëpp xet gi neex na du la sonal lu tuuti rek ngay def daal di fomp foofa toj képp koo xam ne nag bëgg ngaa am ci setol bii da ngay woote ci 77 632 02 96 wala ci 78 602 34 34 kon daal mbokk yi ñoo ko gisandoo setol mu ngi nii indi leen lépp lu ngeen yi yittewoo ngir setal seen biir kër kon nag jeeg ji nee naa leen daw leen gaaw seeti Ndeye Birame ma dem Guèye moom kat moo yore dàllim gi nga xam ne mooy médicament jeeg ji. Setol détergent multi-usage Setol super puissant di xeex lépp luy bactérie ak sama Setol multi-usage ba tey ñépp efficace ndax ñoo bokk li ñuy def ak Setol bii sama coono jeex na. léppay set ci biir kër gi te duma ci sonn toq rekk laay def lépp xëpp boole ci kër gi yépp di xeeñ lu neex kon nag jéeg ji gaaw leen seet si setoon nii ndaxte kat hmm, mooy dàlli ngóor gi de ayca gis ngeen euh, produit boobu nga xam ne nee naa ko gaam la setol euh, soxlaatul sax ñuy wax ci moom ndax ñi bëgg lu baax ñëpp fi mu ne dafa mel ni produit bii di setol dafa xew ah euh, fi mu nekk nii boo demee ci boutique ne ndax am nga setol borom boutique bi xamu ko di jéem a yéex sax fa lañ koy romb bu dem ci beneen boutique far yàlla suñ borom dem na ba borom boutique yi xam ne setol rek mooy dox fi mu ne ci produit yooyu nga xam ne mooy produit kër yi yi ñuy raxasee bool yi ñu ñuy raxasee toilettes yi maanaam na euh, gel euh, pour euh, raxasu boo lekkee ba pare am na li nga xamante ne mooy raxas seen kër yi ba mu seet xeeñal ko neex waaye am na ci yoo xamante ne nii pour antimicrobe la mooy gel antiseptique yi ak yi nga xamante ne mooy loolu daal yéen a ma gën a xam duñ def rek lu dul madame Diop la tudd borom madame Guèye ah madame Guèye la tudd borom ah damay bàyyi Fatou ndigal waxal ko yu baax ah lan ngay waxal ki moom setol neel der rek mu ngi lay seetaan depuis États-Unis mama ñëwal ñu jaloore neex na mama mama yey borom setol mama jaloore neex na ay way mama way leen mama dem joom mama jaloore tey ba ki yey borom setol ndigal njaay galoore neex na ey yow mi jeeg bëgg a set ba kenn du la sikk setol laa lay digal hihéy man de li ma koy jaay mu na jeg boo dem ci këram boo bëggi leer bay melax seetal setol waay ma dem jubuk moom mehe maap maap maap maap ñëwal ñu dem maap maa jëlëre neex na ca borom setal yaa moom loolu ndax macha allah produit bi nag euh, euh, depuis nga indil ñu ko impose ñu ko ba tey Euh, gis nañ ci suñu bopp tey bu baaxutoon euh, dañuy wax nii rek romb waaye man mi koy utiliser nga yónnee ma ci ay carton yu dul jeex man gis naa ci sama bopp ndax nee naa la set li ma xale yi naan set fii la dëkk te jigéen ju ne war nga mën a euh, sàmm sa hygiène ndax say doom waaye sa bopp ndax cet da loo xamante ne képp ku ko bëgg rek soriwu la ndax ndox rek la ak saabu cet moom ndox képp la ak saabu ñu yónnee leen nag produit yi nga xam ne mooy setol moom mu romb rek nga set wi ci ay ñu dem ci ki nga xam ne mooy aji caam ngalam li jéeg ji bëgg Euh, suñu ko amee moom la ñu bëgg waaye buñ ko amul it moom lañu ñu bëgg aji caam nag indi arrivage boo xamante ne musul am musuma gis lii ba ko xale yi ne waa aji caam lii nag mu ne yàlla euh, yàllaay jaay te ku ci nekk ak sa wërsëg ba pare damaa bëgg xale yiy jaay or Sénégal xam nga aji caam dafa baax te am valeur ndax souvent am ñoo xam ne dañ lay bëgg ba dañuy xaw a mel ni kuy ruube mais moom mu nekk koo xam ne dafa dal nekk ko am personnalité koo xamante ne jëkkëram rek a ko ñor waaye moom elle est pas égoïste du nit bu égoïste euh, loo ko wax mu ne xale yëpp dañu war a jaral ndax sama jëkkër mooy njiit ci mbir mi ndax jëkkëram temps yee moom la ñu tabb jiital ko ci ku kuy jaay or jëkkërama la jiite mu nekk koo xam ne loo wax mu ne na xale yëpp jaral ndax euh, sama jëkkër gis ci résultat macha allah kon euh, madame ñaa aji Thiam loo dund doyut bëgg naa jeeg bu mel ni yow in faut ngeen dem fa di jëndi oor ndax yéen macha allah da ngeen a bëgg or xool leen li ma leen di tegal nga xool ay ay ay arrivage am ayca ñu dem ci euh, madame Nia Adji Thiam borom ay ayca voici bijouterie la solution nekk fii ci Sacré-Cœur waaw ci ñaari voies yi comme l'appétit vient en mangeant ñooñu nga xam ni ñoom ñoo di waa gratte-ciel la bëgg liggéey ak ñi nga xam ni ñoom ñoo di bijouterie la solution ndax seen xarañ kon nag bijouterie la solution moo fi teewal gratte-ciel la xool leen bijou gratte-ciel la yii macha allah jàpp leen ni dañuy def fabrication locale fabrication locale ci or nag dañ ko jàng te donn ko loolu daal mooy suñu métier bi njëkk ba noppi nag leneen soog cee tegu bijouterie la solution boo jugee ci VDN bi jël sa ndeyjoor mel ni ku jëm boulangerie jaune xoolal ci sa ndeyjoor di nga gis bijouterie la solution la solution nag am na espace prestige boo bëggee jënd ci privé nga woote jël rendez-vous ci 77 720 17 17 boo ñëwee madame Niang Adji Thiam dina la teral wan la li nga bëgg doole bu baax moom ak équipe am voici bijouterie la solution nekk fii ci Sacré Cœur waaw ci ñaari voies yi comme l'appétit vient en mangeant ñooñu nga xam ni ñoom ñoo di waa gratte-ciel la bëgg liggéey ak ñi nga xam ni ñoom ñoo di bijouterie la solution ndax seen xarañ voici bijouterie la solution ay ca xale yi demee defe naa ni ñi ràññee aji caam bari na kenn dootu ko laajte ndax nee naa ko mooy jeg ji jaay or ba pare yaatal jiital ay rakam jiital ay jarbaatam parce que képp kuy jaay ngalam rek ñu lay woowee ñeeño bala mañ sa yéen a bokki menn maam waaye moom amu ci xaajjeeg seen ndax euh, comme man dama koy defal publicité ci télé bi mu nekk partenaire ak ñun li ñuy jaabante place di bari ay mbokki jëkkëram ne fa ay jarbaatu jëkkëram ne fa muy koo xam ne loo ko wax ci beneen jaaykatu or mu ne na ñëpp jaral ndax mbir mi bu doxee day neex mu ne ku mën a jaay jaayal li may ñaanal sama jëkkër ji laay ñaanal sama rakk yi ndax nee na jëkkëram jëkkëram la waaye ñeneen ñi ñii ay jarbaatam la ñii ay rakkam ñii ay doomam moo tax li muy ñaanal jëkkëram jii ci place bii lay ñaanal ñëpp mu nekk daam de xawma naka lañ ko waxee sax ci tubaab hmm, nit ku brave nit ku am esprit dépassement nit ku amul benn état d'âme mais moom nag elle est une grande dame xam nga moom il faut que rek dama lay bàyyi nga nga nga nga bàkk ko ma soog a ñëw ci ay xoolal xoolal xoolal li or couleur lii ëpp na waaye hmm? yooyu fantaisie ah moom li mu fi wàcce dafa doy waar ah arrivage bi nag ñëw ne maa ngi fa fekk barki démb xale yi ndakaaru ñoom mun a sekk yaayu Malick ñuy wax Malick sama rakk jooju happy birthday sama doom ah rakku bébé Cheikh ah ñoom mun a sekk ñoom bisu silla ñoom Adja Thiam Birane Ndakaaroo Ndakaaru saa yoo demee ci bijouterie Adji Thiam bu fekkee bëgg ngaa gis dind kotu or yi ak star yi mhm. ngay dem laajte Grazelia loolu kenn laajteetu ko bijouterie l'islam ñoom am nañ ko Sacré waaye am nañ ko defe naa côté Pikine am nañ ko feneen ak feneen euh, ñu leen di ñaanal yal na yàlla barkeel ci barke Cheikhul Khadim ndax mhm. macha allah ñoom mhm. xale yaa nga fay jaabante mais dañuy ñaan rek suñ borom barkeel nga ne loo koy waxal yow bu caam su may tukkeeti yow laay àndal wala lan ma madam ñaan su may tukkeeti yow laay àndal bisi tëri lislaam commencé ay jurul ba doole si mag boo fër ci gi ca wat maar foofu mari ñaa bëgg jëkkëram wala leen ma madame ñaan madame ñaa madame ñaa chéri ñaa waaw waaw amina jëkkër da boot nga ni nong sa dara du wëdd tey waykat aji ñaata la boot nga ni nong sa dara dul waaw waaw far yoo leeley daan jël woy la leen ma aji caam jund bu rey neeg baay fulak fayda borom tar yàlla jikko kala yar ci boo ko déggalee baabel génne leen mbaar mi génne leen mbaar mi génne leen mooy aji caam waaw waaw ndeysaan waaw loolu aji caam moo ko moom ak euh, njëkkeem yi mu nekkal ak jarbaatu jëkkëram yi ndax boo waxee mu ne ñoom ñoo ma jàppale boo waxee rek aji caam nag yow lu ñu la waxal ci télé yow mu naan billaay poté du man sama mbokki jëkkër yi ma nekkal buñ ma jaaxaloon rek ma jaaxle waaye macha allah dañ koo jiital ah ndax bëgg seen càmmiñ bëgg seen nijaay moo tax yéen i tamit dañ leen di bàyyeeg Serigne Bamba rek ndax jigéen lu mu bari bari doole dafa gaaw a jàq bala nga koo xam mu jub ay nit saak bi fees dell xaalis bu fakastaloo sànni lépp ndax day bañ ay gàcce ay gàccee lay bañ ak i noonam retaan ko moo tax aji caam bu nekkee jàmbaar ba ñu koy wax rek mbokki jëkkëram yi ko dooleel ba mu koy wax moom ñoom la ñu koy sante kon euh, euh, famille monsieur ñaa yéen dundu leen ba doyal waaye ay mbokki aji caam yéen i dund leen ba doyal moom i tamit aji euh, aji caam mu ngi ñaanal jaaykatu or yi ci Sénégal yëpp yéen ñëpp ngeen am jàmm xam man xawma kenn ci réew mi xam nga man kan laa xam ki ma jox bopp rek laa xam ndax man rus naa ñaan te lu ma am bokkoog nit ñi te duma dem fenn di àbb waaye képp koo xam ne da ngaa bàyyi sa lépp ñëw ni TFM la te TFM nag ku ànd ak moom juumuloo xam nga euh, chaque at ñu wane ko sax waaye ren dana gën a leer ndax màggalu ren gii ah ci kàttanu Serigne tuubaa bu ñu yàlla bàyyeeg suñu sago rek ah <laughs> télé yi mën nañoo fay rek du ñu seetaan ñun site internet yi it mën nañoo tëj seen site yi rek te duñu xool ndax xam naa ni mbir mi xale yi damay ragal ñu seetaanee ko ñeenti bët maanaam ne jàkk ba pare aj seeni loxo bu ñuy seetaan ren télé ci màggal gii kenn du ko seetaanee nii nii nga koy seetaanee nee naa la loolu nag yàlla moo koy def ci njiit TFM la yàlla jiital moo tax waa Chine ak euh, Europe ba Asie daal du ma lim ah partout dans le monde fépp fu africain ne rawatina sénégalais yi rawatina nag taalibe Ahmadou Kra yi waaye rawatina taalibe Serigne Touba yi rawatina jullit ji nga xamante ne yéen màggal siwu leen ndax euh, euh, bëgg dem taxula la dem mën a demay tax a dem yéen ñi ñëwul Touba dana leen fekk si ci seen réew te ki leen di jottali Touba ba ci seen i biir kër TFM képp lay doon ci Serigne Touba moo bari doole. te déwén day gën a garaaw nag. gis nga ren nii ngeen ko nar ren euh, euh, émission yëpp arrêté nañ ko mën a focus nag ci li nga xam ne mooy màggalu Serigne Bamba gi ren nag ah di ngeen bëgg de ren jii barki Serigne Touba lan ngay waxaat sax yow ci mbir mi lii may wax nii loo ciy wax. sëriñ bamba kabar ga mu kabar ca kër gouverneur mooy aw sëriñ du ko tollante yaa fi man lii ndeysaan amina sunu waay billaay suñu waa ji la làmbee yàlla ba fekk muy géej billaay dëgg la mu tànk ca leeri xay bu yona boroomam ca géej ga la moomee kun di baatin bu noon ya fa bee kan mu ne kun boroomam <laughs> yooyu woykat ndeke melaw ba mbaagi waaju xamul na dégloo tey roy leeru jukkoom Amina Cheikh Bamba daa xam boroomam day joxe aji laaj di dimbali dëkkaaleem sëriñ Bamba du tooñ taku tooñ mu jéggal ngir boroomam day may ku ko bañ di woo ko foñ di neexal safoo ki ko soof ku dul kii mooy boroomam daan fekk ku ñëpp xeboon cosaanam mu fal ko ba ñépp faale ko ndax borom. daan fekk murit bu dof bu tilip bu mel ni man jàngul ferul ba mu fal ko ba ñépp faale ko ndax boromam ba mu amee ñetti weer fa baari la dugg xol woo di ñoon lil bëxri amina seytaane dem ruxale kook nasaraan sa naan ko jaar lay fexe fii soo daani borom ndar yu nekkër Serigne Touba doon fa seet balak doom fekk fa téereeg warga mamat gaaji keroog la yàlla xar seen xol ya def ca ragal mamadul mbàkk yu moo tax fa taftu fil baari la seytaane tab ka boo xayral wara awtaana wa man yu ajri fi sabilillahi wan maa ko yóbbu foofa doon laay أحد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن nañ màggal ci bisimilahi rahmaani rahim yeggal ci alhamdulilahi rabil alamin man de xam naa képp ku ma bëgg a tàqaleeg Serigne Touba demal rek te bàyyi mag moom te noppi naa pour bàyyi lépp nag parce que ay temps sax mbir mu mel nii da ngay dajeeg ay nit ñu bëgg la faqatal mais bañuñ ci sax ba ñàkk suñu bakkan bii kon ku tedd ki dañuy ñaan rek suñu borom bàyyi ñoo ko yow ndax yow képp ci xol leneen xaju ci jox ma ki ci ligne bi allo ay ca euh, euh, boo ma mënee jox Modou Gueye héritage boobu ma la jox léegi euh, ngeen xam ni moo Gueye moom itamit ci mbir mi la bokk ay ca vie bu fekkee ne moo duggee bi noppi na rek moo ma ñawal lu rafet lile waaye maa ngi leen di wan léegi ay mbiram moom itamit lu mu def kii nee na ma Amina damaa bëgg nga wax faat Ndigal nee na moom ndaanaan yee ko bëgg mais moom yow la bëgg nee na ku fi jaar wëy na ma waaye man bëgguma loolu nee na ma kii laa bëgg mu wëy ma moom mi ngi tudd uh, xaali Matar Diop sellee yaayam loo ko waxal doyul sëtu beskaay Diop la jigaamu gel jigaamu gel waar jigaamu gel waare ñaaw am naa yaakaar ay ma way leela waaye gis naa gel waar ma way leelaab ma way leelaab eey Matar Jóob ndeysaan sëtub xaali Jóob la jor Jóob sab maam ba Jóob maa co Matar barayoon ku lu jor fal Faatim ngay ki lu musum yaasin ngir bu ku na hibar gi jëg jógub maay mhm. xaale Jóob juddu bu rëy ndeeg baay fulaak fayda borom daal eey Jóob li ñuy toppe gam ngër bi yaa ay ca boo ma joxee anniversaire yi macha allah kenn dàq ko wëy waaye il faut ki fi nekkal artistes yi yal nañu yàlla jàppale mu gëstu leen ah parce que dafa am ñoo xam ne dañ koo soxla ndax nee naa la talent billahi da ngeen di foom mais képp ku ci am talent te exploité woo ko mën ngaa gàtt fan parce que dafa diis lu ne ci yaram ngay wéet di yuuxu di kër kër yi bu yàggee xam nga lan la ñuy wax dañ lay génne ci biir nit ñi ndax dañ naan kii moom wérul booy ñëw sax ñu naan gis nga bu yegsi di yuuxooti fekk il faut que mu yuuxu dégager énergie bi sinon rek ndeysaan yal na yàlla musal artist may leen jàmm waay barki Serigne Saliou ñoom ci jur gi lañu bokk ndax métier la ay ca jox ñu ki ci euh, euh, euh, anniversaire yi boo ñu ko joxee rek mu neex ah, kii nag sama yaay la gis nga kii damaa bëgg nga xamanteeg moom kii mooy ajaratu faatu Samb moom baayam moo ko jur defar ko ba mu baax ba noppi mu jox ko kilifa goo xam ne ku sañoon rek mu nekk sa sëriñ muy Cheikh Cissé Cissé mu Medina bàyyi moom imam Cheikh Cissé mooy borom këram muy yaayu seex yi moo ma invité ren rakkam moo ma invité ren euh, Touba euh, euh, il faut nga waxal ko lu baax ndax kii dangay dem nga seeti ko ndax kii mooy xaritu kii mooy xaritu première dame Marème Faye Sall waaye kii nag mooy xaritu sëriñam Cheikh Cissé mooy borom këram moom mooy yaayu seex yi kii mooy Fat sàmb magu séeré loo loo ko waxal doyut donoy wàll yee waaw waaw wuleej ñaari kay mooy Fat Samb yaa jam wiri coola wuleej gay naagu yoo yee ajaratu Fatou Sambe jam fari maa naat boob ma way su ko naabee laa jàngu mi bal yennoo bu tawee ñu mbiri kaama ajaratu faatu samba moom lañu dégg sëriñ siise mu siidi barhaam ñas billaay juumoo ñas ko maam dallaayi samba coro faal ndeysaan ey siise lañu dénk ajaratu Fatou Sambe yaaye ko sàkkal baay billaay mbiri mbàcco du baaya ko yaay bu la gouverneur naroon na toxal bu la ràmbur seewul bañal way daq naa ñi maamoon ngir xotti seeni kayit dunu bandoo de ma madame Cissé yaa ma ko ey abina ay abina doom ji yaay baaxee fa mu jaar baax ajaratu Fatou sàmm dund kenn du moom kenn du moom kooku euh, séeré loola bokkal euh, benn ween nee naa mère Anna mi ñuy jooyte noppee gu ñu moo leen jur ndax nit nag dana juddu sax du baax dugg fu ko defar waaye ñoom macha allah danoo seen juddu da leen a defar ba noppi waaye ñu dénk leen nag surtout seexal lislaam yu baax yi nga xam ne ku sañoon ne ci ñoom ay ca ñu demaat ci beneen anniversaire kooku dañ ko doon nuyu rek suñu yaay la ajaratu Fatou sàmm man nii laa mel ku ma a defal teraanga ma defal la ko ba noppi kii nag damaa bëgg nga zoom ko kii di anniversaire dama laa bëgg a booleeg léegi fii ñu toog yaayam moo may maquillé Amélia ku ko xamul bëgg nga koo xam yàlla dogal na ni ñun sax ñaawuñ waaye ku fa dem da ngay gën a rafet hmm. kii nag mooy Mouhamed caam moom dañ koy ñaanal duñ lim sax ay baax baaxam di ko catu ndax xale bu baaxee nangoo jàng sa ndey di sonn ci yow di la xëyal di la gontal boo amee bés nii lay demee tey la anniversaire am sama doom ji loo dund doyul Thiam Babel Demba Thiam yow la ñu dippee Seydina Mouhamed ku sañoon tudd Mouhamed lan ngay wax ci Mouhamed mu Amelia mii. neex nga waay. mooy taaw. taawu Amelia neex nga waay. ndeysaan. budul Amelia sa yaay fexe ba kenn yabu ko. bilay kenn yabu ko. waaye jur sa doom tuddee ko Seydil Basar Seydil Kawnayni Seydil Awalina wa Seydil Axirin muhammadu rasulillahi dundalooy caam ndeysaan amari yaay saay mhm. dundalooy caam ba sëy may di baawaan doomi amina pote ndeysaan ndeysaan ñu dem ci keneen Vieux Diouf artiste nii rek la mën a mel tayu ko barki sëriñ Saliou ci deretam la ne ndax fii ku fi toog bu la boo sañoon da ngay def lu ñëpp yi wax fi mu ne àddina bi ñëpp ngi may bind bu la neexee léegi mën ngaa ñëw ci say géer euh, jox ma keneen ci anniversaire yi kii nag mooy borom màggal gi kii nag bala ngaa màggali damaa bëgg mu waajal la moom ndax yow ku la xam-xam gaa ñi dañuy dalalaate waaye yow da ngay dalalaate kenn dalalu la waaw léegi nag kii damaa bëgg mu waajal ndax kii mooy gis nga li mu gàccoo waaw kay moom ba muy jël ci avion yi ñu bari tukki wuñu li may wax du waxu télé ndax nit boo toogee ci télé di wax lu la neex ña ko xam-xam nañu moom ba mu njëkkee wàcc aéroportu Chine chinois yi danoo fàq di ko seetaan ndax mooy nit ku ñuul du ma ne moo fa njëkk a wàcc waaye bokk na ci nit ñu ñuul ñi njëkk a wàcc siin xam nga jamono tolloon na foo xam ne boo tukkee nekk euh, black dañu lay seetaan te moom jomam rek a ko yóbbu woon ak dimbali jëkkëram ak liggéey te yàlla rek tax te moom yoonu xaadimul xadim bii da cee am waaram moom di wàcce conteneur yi bu màggal jotee di dimbali jaam yi di ci def lu rafet a rafet moo tax kii mooy séeréloo loo siré ma ca ndaam loo ko bàkk doyul demal ci séeréloo borom màggal gi loo gay del loo billaay wallaay gay delaale sa ne ba ba mm-hmm. gay del xuja waaw waaw yàlla xuja kumba maam Njaay xuj ak kumbaak sayib xuj daarooy gay sere loo tey ma wax la loo bokk ak sëriñ Moodu Musa mhm. soxna Aminata Loo Joob ba jëkk a joxe ba kanam Tuuba yaayu sëriñ Baara Aminata Loo yaayu Moodu Musa waa Aminata Loo gay delooy Jibril ale sene ba jaapoñ ba yeey ma way gayda mam njay xujju kumbaak sayib xujju kumbaak daaro jom janga ndaam fas waa nga ndaam gaydel yàgg na ak deelam sirelo gaydel bakk naa la way la gaydel oh, gaydel nee na neex na lool boo noppee léegi barki démb dama invité fii sama nawle mu bàkk ko nii nga ko bàkkee bam noppee la ma woone ma maa ngi koy woo léegi taral ko dig ma woo léegi ne ma woo na ma koo koy séeréloo yow koo invité Touba mu ñëw ndax macha allah dal ba neex na set na te macha allah dara nekku fa lu dul kennal borom Touba moo tax seere xar ñu ñu ni ñëw ñu boo ñu invité rek dañuy ñëw loo siré ma ca ndaam ndax yow koo woo bëgg a ànd ak moom danaan la kañ dem ñu jàppale la moo tax loo ñu ni takku nañ ba dëgër ci kàttanu Sëriñ Touba kon dañuy préparé màggal gi rek ñu demaat ci beneen anniversaire Vieux Diouf ay ca jox ma ki ci topp juuf ñu euh, tëjee anniversaire yi ma bàyyi ko nag moom mu bàkk ay géeram parce que confinement bi dafa metti boobu ba tey kenn joué wul di jël rek. kii nag dañ koy wax happy euh, birthday ah fàttali ma euh, joyeux anniversaire à Sali cheri euh, Fallay noon la ah joyeux anniversaire à Sali chérie Fallay Cissokho. de la part de Collé madame urbaine ah euh, Sali Chéri si soxo dundal ba doyal de la part de Collé euh, madame urbaine loo dund doyul ñu dem ci beneen anniversaire Sali dundal ba doyal ah macha allah moom dafa sax jongo ma ay ca vie ñu dàll ci beneen euh, birthday bu leen fàtte Modou Gueye héritage moo ma defal lii di ma waajal li nga xam ne mooy màggalu Tuubaa gi ndax màggal gi nag ñun dañ ciy bëgg ñun ñun dañ ciy bëgg yu nooy nag xam naa sax masin yi baax na waaye dañ ciy bëgg yi tamit euh, tailleur yi nga xam ne dañ leen daan solal ñu ngi leen di woo ngeen sponsoriser ñu it màggal ndax munuñ rek duñ toogee fii ngeen ñuy solal bu ñuy dem du ngeen ñu solal màggal gi bëgg nañ ci ay coton waaw ndax ñun dañuy laxasaayu nekk ci waañ wi waaw ñun bokkuñ ci génn katu télé yi nga xam ne dañuy jaaxaan ñu nuy bernde ñun dañuy yegg jàpp ci waañ wi jàpp ci bale gi jàpp ci raxas yi ba màggal gi jeex ñu raxas suñu oto takk jóg ay ca ñun nii rek la ñuy dundee màggal gi ndax looloo ñuy jox plaisir waaw dañuy dugg ci waañ bi laxasaa yu ba dëgër këj waaw liñ naan góor day dëgër këj waaye màggal gi ko ciy dem da ngay dëgër këj ay ca vieux ju ba ma mënee jox anniversaire bi ci topp am na benn xale bu bu ma la yónnee noonu bu sol équipement bu fekkee mën nga ma koo jox rek euh, ñu daal di dem ci moom moom itamit euh, kooku rakku faa faa la faa séeri Zil Diop ma ngi ñuy seetaan xam naa kii euh, kiyam la rek xam naa kii frère la xale bi mi ngi tudd Mame Moussa Diop ah joyeux anniversaire maam Moussa Diop ñi ngi lay ñaanal nee ko nee na seere nee na mi ngi nii nee na ñu ngi koy woowee fu ne te nee na yow mi yaay géwélam nag yow mi yaa ko xam loo siré ma ca ndaam xaaral am waxal alo loo allo loo allo sama sama sama yaay ji Aïcha euh, euh, euh, seere mi ngi lay bëggee nee na boo jugee fii léegi dana la woo moom nag de kilifa goo xam ne bëggul sax ku koy tudd ci tele xam nga télé dafa am ñu ko bëgg li ma naan aji caam Euh, bu may wax ci yow tem nit ñi foog ne dang dangay dang may déey te billaay ci aji càmm mi may wax madame ñaam miinante wuñ sax barki Serigne Saliou Mbacké li ma naan ko su nit laalee Youssou Ndour bu may wax day mel ne damay fréquenté Youssou te amaana sax duñ gisante dafa am yëg-yëg yoo xam ne bu dee baax nga ñu def ko nit ku baax wala ñu bëgg koo def nit ku baax wala nit ku baax ne ci yoon di nga xam fooy jaar ba waxal ko lu baax ndax lu baax wax ko jafewul xam nga lu bon boo ko bëggee wax di nga ko répété waaye lu baax boo koy wax danga naan der rek mu génn naturellement dugg ci xolu nit ñi moo tax yéen ñëpp baax dañ leen di ñaana rek suñu borom may leen gudd fan ay ca jox ma euh, dernier anniversaire boobule ah euh, di nuyu ba tey waa place ba rek waa place u euh, bijouterie l'islam ah moom aji Thiam madame Nia ah, borom Grazelia moom dañu koy nuyu jeeg ji nee naa la démb ba ma fa demee rek di ko wuyu ji man fonaa ba jënd fa sax lam ndax musuma gis boobu motifu lam man mu ne ma Amina salam bu la neexee takkal léegi estati léegi kenn du ko fals ah. te or bi neex nag or bi ngay takk te noo ko nuroo kenn Sénégal danoo tàmm ba ci ay table amasé kër goo dugg gis fa table bu weex mais lii mbaa jàmm la or yi tamit ceen boobu noonu nit ñi di nuróole lan la <laughs> ah aji lay moom dalay jaay or ne la or bi dañ koo garanti kenn du ko tëgg ci plaqué waxuma la di ko defari ci or non mais yéen Sénégal bëgg na mais ñun xanaa ay seex lan fii dañuy otesu ba kër goo dugg table à manger yëpp a nuroo dee leen jënd ay matériel européen te bàyyi chinois geeg euh, Dubaï chinois baax na matériel chinois parce que Chine ñooy defaral européen yi mais Europe dafa am euh, dafa am nan lañ modèle européen dafa am est-ce que comprendre nga waaye ñoom dañuy xool ku jënd lii rek ñu commandé ko moo tax commande yi ni muy ñëwee conteneur boo ubbi lal yee nuroo. noonu la mel lu ma jënd ma jënd. waaw yow li tax ngeen di toppandoo wante nii <laughs> mais man ni nit ñi dañoo dem ñun ba nuroo xanaa da ngaa musóoru mu soog a musóoru. waaw li ñu sol ñoo koy nuróolu. ay ca damay profité noonu nag moom ci Aïda mi. <laughs> waaw nga xam ne. macha allah man Aïda rek laa bëgg. laa moo jaar ci musóor bi jaar ci maquillage bi. jaar ci sama njañ yi ku ma xool xam ne. da laa bëgg. ala yaay Fall maa rek. borom complexe Fatou Ndigal. ndeysaan moom itamit moo may defar make-up bi. moom yow rek la bëgg moom man rek la bëgg. moom yow rek la bëgg man ah yal na leen yàlla bàyyi ngeen dem bay tuddantey doom. ngeen dem ba seen sët yi di ànd. nii la ñaar ñu bokk bu ngeen bëggee tey kenn du leen ñemee songu da ngeen di suudee gis nga boo seetloo kër yi seytaane di dugg yëpp mooy ñi bokk te ànduñu ku nekkay nekk ci nopp kenn ki di wax bu ñu waxee ci yow ba nuppi dem ci kii moo tax ñi bokk te ànd yàlla na leen yàlla lafal cet ay ca léegi ci say géer laa bëgg rek bala maa ñëw ci nga tàggatoo demal ci say géer ndax ñoom it ñi ngi lay seetaan te am nañ part ci mbir mi waaw waaw ay ndanaa Ilimaan a ngi ñëw mag jaa nga italiyaa di dabo billaay ndeysaan dabo jula sankaranka cokki ma dabo ñaaki ma dabo Njaay yëngu leen waa Dabakounda yëngu yaayu Serigne Saliou Njaay taalibe Serigne Saliou Fanta Daabo yaayu Ami Njaay yaayu Mohamed Njaay sama mag gi daf may xool naan ma ndigal dina baax waay waay waay ma way waaye Amina bu ma jugee foofu damay dem ba Amérique. way fa sama waaja. Mm. Maria. loo dey del ale sana ba jaafoñ ba gay del xujja kumbaak faalo yàlla xujja kumbaak sayam xujja kumbaak daaro ma way ee eh, génn guma Amerika damay jëm ci ndey bi tagay aja lobe gi yaayam xujja kumbaay baa Xaasim ak Seynabo fara ci gi cawan maar waaw waaw doomu yaayam yi géey yaay seex ca Amerika yi doomu yaayu may mun a gaay docteur bu ma way wala na nañ ko jox sa numéro balaa émission bee jeex nee na ma Amina Asi bu soo Seydi bu soo Poul Jamata Gacce surtout Mourad Ndaw yi laay bëgg way kuy maam Mourad di sa maam booy boo jegeel télé bi. waaw waaw jegeel télé bi. nañ si Moral Assane ana Moral Assane ma xonnu Moral Assane ak mbaru Moral Assane Alassane ndaway seen baay Samba Fatim Ndiaye ndaway seen baay Fatou ndigal seen géwël leen di wayal ma kumba jogo seen maam puur la Senghor jogo puur la Ndeene jogo puur la. eyi jogom ndaw koddu bige ñaxana ndaw koddu bige bagal mi des sara biram nu mbee nga di saaja mbaar waaw waaw bokkul ak jogom ndaw koddu bige ñaxana ndaw koddu bige saa nee na adam fa xame ci tam billaay ndeysaan kati samba jàllo seen maam yaasin samba jàllo seen maam ak leena samba jàllo seen maam laaj ma lu ñu bokk amit naa lu ñu bokk leena samba jàllo jër muraad waaw waaw kii mën Samba Diallo jur Jaaji Saar Jaaji Saar ndikku mbooj Fara Saar ndikku mbooj Boy Wade maram ceew kon du Samba maam moo waree woon biir Jolof wàcc waalo taw la fa Jaaji taw barak teg ka taw barak wii leen jàkk jaay fa newloo ndar géej Yaasin Samba Diallo Yaasin Samba Diallo muy eh, muy mami mam jaara ka respect ak pulit ka respect mooy yaay maam awa moom la ñu dénk sëriñ Jóob sadaxta amina amina amina wey demul daat nga talibi sëriñ Saaliwoo ndeysaan ndeysaan li xaj ci li ni nu ko olof yi di waxee li ci nag bi waa li duuf ci nag bi xajul ci cin li ah fi mu ne nii euh, may nañ ñu yeneen 43 minutes dépassé nañ suñu heure bu yàgg ah di kontaan ci sama rakk jooju nga xam ne euh, yow yaay séeri xaadim fay fay dece ah euh, mbak yu fay mooy sa goro waaye ku la woo ci àllaaji papa gay xaar gay farama ca ndee naataango mi ci mbaylaan dimmi non ko soxna njaay xadi sekk mooy sa yaay waaye pap sàmba gay mooy sa baay kon yow fuñ la woo rek fekk na am nga foo nekk waaye dañ lay woo rek ci sa jëkkër ju baax jooju nga xam ne mooy góoru Fat Bintu Fay ay dañu lay bàyyi kii nee na ma bala ma laa bàyyi nee na ma sarax ma ngir yàlla bul tëj te joxoo ma numéro ñetti nit ñooy laajte sa numéro kenn ki mi ngi tudd faatu caam kenn ki mi ngi tudd nabu kenn ki mi ngi tudd euh, Njóoba nee nañ sa numéro rek la ñu soxla. waaw sama numéro 778. 778 mais nag yaa am talent nag te neex baat nag yàlla na la yàlla sàmm. yal na baat bi wér yal na leen yàlla bàyyeeg seen yaay jii ngeen dese te ngeen mënal ko lu góor mënal ay mbokkam jigéen baax na góor baax na te jigéen ju bari jom moo gën góor barki sëriñ Saali bu ma gisee kuy jooy góor dama naan ko yow doo nit <laughs> parce que jigéen ju mais yow tamit jigéen xajut sax ci boppi góor jigéen ju bari jom rek te yàlla bëgg koo teral non yàlla ñu yàlla sàmm ah defal ñu xewal ak sutura bàyyi leen ak seen yaay yow bàyyi la ak sa doom yi parce que man dama laa xam mhm. da nekk jigéen ju bari jom am talent nag macha allah gàtt tànk rek la da ngay doomu géwél nag noonu rek a la war waa géwél du juum parce que boo juumee dinañ la xalab mhm. te amoo droit def erreur kon dañ lay ñaanal yow ak sa rakk ji nga xam ne macha allah moom maa ko bëgg sama jàmm. joxeel sa numéro gaaw. Euh, sama numéro 778. 778. 21 20. 21 20 77 77. waaw 778. 778. 21 20. 21 20. yow programme yi ku la woo nga toj ko. dootuñu ko defati. Euh, exemple tey euh, bu fekkoon ne dan may takk suba suba suba ma ma tudd ma ma nekk madame Saliha yow loo may waxal. waxaloon nga ma fi daaw dañu tagg ma lay laa dama naan la fi mu ne sumbulu nag nga sa yaram bi gaaw saali xaa wax ma ku lay biir loo ma wayal la ko saali ki lay jooy loo ma wayal la ko wax ma ku lay jooyloo sama waxee ki doom yi rek may jooyloo keneen safuma ci àddina barki Serigne Touba dañuy metti sa bopp ñoom man daal maa ngi ci pëteeg saali rek mbay sang seer ak jaxasi sa maadamel kenn du yéen ay ca saali ca kaw. vie Diouf nopp nga sama doom ji wàcc ko aka nopp saali xaa ay ca dañuy dem rek remercier bala ma leen a bàyyi ngeen tàggoo euh, ñu remercier nag vie Diouf mi ñu àndaloon ci réalisateur bi Diouf yàlla na sa jàmm yàgg kenn gënu la ku baax nga Diouf a ña ko bàyyi boroom gaa ñi man ku ku ma dëkk dékku rek baax nga ndax man sama xool rafet na waaye dama am xadar ñoom ñi nga xam ni télé dafa doy waar nit ñi duñu la xam mais ñi ngay àndal di liggéey ndax ñi ngay liggéeyal chaque jour ñoom nga dëkkal kon buñ la téyee rek ñoom ñu baax lañu moo tax Vieux Diouf maa ngi lay ñaanal yàlla na sa jàmm yàgg Diouf a ñoxo bàyyi sàmbay borom gaañi di ñaanal ki takk micro bi Abdourahmane Mawo Cissé promotion mii ak ñi nga xamante ne ñoom laa àndal ci palaato bi muy Faatu Ndigal ak rakkam ju baax jile yal na seen jàmm yàgg ak ñi ñuy ak ñi ñuy seetaan ak Mansour ñaa ñang baalo yow da ngaa war a dund dund ba doyal ay ca euh, euh, kan nga bëgg a remercier waaw dama bëgg a samay géer rek ay ca gaawal Euh, tubarkalla di sama bàjjen Koura Gueye. macha allah. Abari Gueye ak Abari Sarr Gueye Abari. macha allah di nuyu sama bàjjen Adama Gueye. Mhm. temps bi moo nu ko may. Mhm. di nuyu sama bàjjan Awa Guèye. macha allah di nuyu sama bàjjan Maam Ndiaye Guèye. waaye di nuyu doomam yu baax yooyu yëpp waa kay Guèye abaar yi képp ku seen fàttu ndigal rek. Mhm. xamal ne maa ngi lay nuyu. waaye di nuyu sama rakk ji nga xamante ne. Mhm. day def lox yi di def faux lox yi borom complexe faatu ndigal. Eh, di ma ci defal de. waaw day def lox yi parce que Ila Touba. Mhm. amul mèche. amul euh, greffage. donc il fa que ngeen ñëw ay da ndigal borom complexe faatu ndigal. defaral leen ci lox yi. boo ko bëggee jot nag Amina da nga koy woo ci 78. 78 300 man xaaral jël ko ndax da may defal parce que man démb lañ naan ma da ngay def lox yu amul fenn. maa la wax ah damay jël sa numéro 78. 381. 381. 49 20. 49 20 ay ca dañuy dem nag nuyu ci remercier ci kani gay gay xaar sama yaay joojulee gay farama ca ndeer naataango mi ci mbay laa nee naa la gay euh, euh, dama lay bàyyeeg yàlla rek ñaanal la euh, doomu ndeyu mbayan gay doomu ndeyu ndey xaar gay ah doomu ndeyu chéri jaara gay bàjjan capitaine aas dundal ba doyal aas chéri kay naa depuis Allemagne sama rakk joojulee di nuyu nag ki nga xam ne mooy euh, euh, mooy bàcc borom trois et moi ma nga Istanbul di jëli bagage yi incha allah après màggal rek mu indi leen ay nouveauté ah di nuyu nag ki nga xamante ne mooy Kumba borom SDE di nuyu Awa fal euh, bu bis collection Meta Balde sama seexu yàlla boobule Zeyna madame Seck yaayu Amadou bébé Mangom ak ki nga xam ne mooy Jaara Gueye Fatou ñanko Séeri ñanko Cissé sama jaaykatu or bi Tille Diène maa ngi lay nuyu ku baax bay bëgg dee nee naa ko yow da ngaa baax nekkoo ci lii xale yi nekk amoo sew sew yow da exposé say 21 cra say 18 ak 14 di ko jaay rek muy jar alsaan loo dund doyul ah yaayu ay da Doucouré maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu nag sama waa ji hmm, sama waa ji maa ngi lay nuyu xam nga sa bopp di nuyu nag nday Marème boroom dakaar Afro sama waa ji rek laa ko jàppoo. waaye Amina lii su ko fàttee du baax. lan euh, xam nga dafa am ñu may liggéeyal. <laughs> ñuy sama rakk nag. Mhm. muy Ahmed Dieng ñoom Momo ñoom Mballo. il faut que ñu nuyu leen diaspora diaspora art. waaw képp sama vidéo bu ma mës a bu ma bëgg a génnee rek ndax mhm. fan yi nag mayuma leen dara indi naa ndigal la te maa ngi indi mbiifee. mbiifee donc ku ma bëgg a seetaan rek na nga dem ci diaspora art te nga abonné. diaspora art ay ca sama rakk ji yow loo bëgg a tàggoo. waaw Amina di kontaan ci yow. est que xam na ma laa bëgg. yal na la yàlla sàmm. di ñaanal sama mat yàlla may ko mu gudd fan. Mhm. te yàlla may ko. Mhm. muy voyage di voyage di voyage. incha allah dina am. yan na ko yàlla mënuma wax ci moom nag. ndeysaan saan nga koo bëgg da nga ko bëgg jooyloo ngeen na sànq. waaye bépp ànd bu rafet rek yàlla na ko yàlla saxal te bàyyi leen fi baax rek moo am solo lu dul baax baax gënu ko réew mi yaakaar naa nit mën nay kaf di ree di përpër yi ku nekk ak jikkoom waaye ku wet xam sa bopp fii kenn gënul kenn. valeur mooy compter te ñu am valeur bu ñu weetee xam nañ ni ñoom kenn gënu leen moo tax nii la ñuy tàggatoo mbub mu rafet du wax lam bu diis du wax jikkoog deret mooy wax moo tax yàlla nañu yàlla bàyyi ñun ñëpp ci kaw suuf ba ku ci nekk yeggali sa yéene maawo mention spéciale tey macha allah da ngaa jóge ca kaw wàcc ci suuf TFM rek la ñor ak sa liggéeyam ah. chéri dama yàgg ak moom chéri Amina bàyyi Amina bàyyi danoo yàgg lool sax. moom jaar na 2S. Mhm. fa laa ko xamee 2S. te macha allah def fa dara lu ñaaw. bu ko neexoon léegi delluwaat. ndax reewul bewul fuuyul. xam nga nit da ngay yaru. boo yaroo foo jógee di fa dellu. ay temps nga sëy ci kër ba tas. séq ak ñoom loo xam ne moo dàq sëy ba loolu nag yar moo koy maye chéri Amina Baye Mohamed yàlla na barkeel li ci des ci barki Mohamed yéen ñu doon seetaan nag kontaan nañ ci yéen mais encore une fois daw leen ndànk dal ndànk yegg ca jàmm ñibbisiwaat ci jàmm parce que woykat bi woy na ko nee na euh, daw bu baax euh, dal bu baax waaye daw ndànk dal ndànk rek kon ñin ñi war a dem wutali Touba ci dëkku Cheikhul Khadim bu tedd boobule képp koo xam ne départ nga di dem ñu ngi lay ñaan yal na la yàlla sàmm te teg la ci yoonu jàmm ak salaam nag xam ngeen ne taw bi dafa bari moo tax na yeen daw ndànk ah. murit nag day yaru murit day am ak taalibe murit day dal rawatina nag kuy wootu murit ba nekk saa diix da ngay am yar te yar nag day feeñ ci dawal bu leen teg xasida yi mu foor ngeen di jaayu di aalu ci oto yi bu leen teg kuréel yeeg cant yi ndax da yokk sa rajo di jaayu bay derape def leen ndànk rek ah te te te daw ndànk yegg merci beaucoup Amélia borom institut Amel Beauté ah kontaan nañ lool te ngeen yóbbaale seen i masque merci Massour mi décoré fii hmm? kuy dem yóbbul sam masque parce que moo gën a wóor ah comme mbir mi xeweewul fii ci réewu tubaab bi la tàmbalee ba yegg si fii jeex na ak jeexul bu leen ci dugg yobbale leen seen i masque ndax lii ak cant la Serigne Touba xewle ñu ne jeex na takk ak cant la waaye dana lakkeeg du lakke yóbbu leen seen i masque te ngeen respecté ko te ngeen daw ndànk surtout ay ca merci beaucoup Modou Gueye héritage dugalal ma numéro Modou Gueye euh, Vieux Diouf ñu remercier ko chéri Bichiri chéri Ami Gueye ah, euh, héritage couture kontaan nañ lool ci yow waaye kenn du Seydou Daabo mi ci mbasin yi borom marché HLM doomu ndeyu pap Aw képp ko ci soxla Modou Gueye da nga koy woo ci numéro téléphone bii di jàll mu ñawal leen am na yu gën a garaaw yi yow moom xam naa dinaa la ci ñawal noo màggal gi il faut ma defanteeg yow ah il faut que ma defanteeg yow merci beaucoup Modou Gueye héritage gis nga mi ngi nii yii lay def gis nga kii mooy chéri Bisiri ak Ami Gaye ah Modou Gaye héritage dundal ba doyal TFM amal na la njukkal nag ndax boobu ba tey yaa ngi àndandoog ñun 2011 ba 2020 kenn amul sa pay ay ca vieux Diouf yéen ñu doon seetaan ci émission bi nga xam ne mooy seen miroir Rismon Diz kontaan nañ ba après après màggal ak jàmm ak salaam ñu àndandoog yéen yéen ñi bëgg jàllale seen i publicité ci télé bi ñu ngi leen di xaar ci numéro Ami Ndaw 78 euh, la 144 31 31 ngeen mën a jàll ci télévision bu mag bii nga xamante ne ci màggalu ren gii ngeen di xam kan mooy tii féem ay ca merci beaucoup vieux Diouf